ak sëriñ ak sëñ ma dikkee ñu jox sëñ ma dikkee mu sëñ ma dikkee mu tëj ñu jox baay daam mareema mi nga xam ne mooy kilifa ak jataay bi mu def ñaan ñu ngi nuyu nag bu baax sëñ Abdou Lahad Mbacké moom sëñ sëñ Abdou Latif ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu sëñ abo moom sëñ Modou Rokhaya di nuyu sëñ abo moom sëñ sëñ Issa Mbacké ñu leen bu baax di sant nag ñi fi teew ñëpp di nuyu délégation bu jóge Daaru mu sëñ Aïdara Diop ak sëñ am Amsatu ñu ngi leen di sant bu baax di nuyu waa Njaane yi di nuyu waa ci la dara maa lañ sëñ Mbacké si la ak waa bopp si la yi sëñ Modou Sylla ak sëñ Xaadim Sylla ak Moustapha Sylla ñu ngi nuyu ñëpp daal képp ko fi teew daal ñu ngi la ñu ngi lay nuyu sëñ sëñ Modou Diop ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di wax it ngeen ñaanal alaaji ma demba tey gisuñu ko ci jotaay bi ndax dafa am gan daa mel ni moom gan képp gën a ñëw ndaje mi mi ngi ci gan gi boobu ba tey rek ngeen ñaanal ko yàlla defal ko mu am njabootu njaboot njaboot gu barkeel njaboot gu lislaame yàlla na ko yàlla defal gannaaw bu loolu wéy nag am na mbokkum jullit moo xamante ni indi na indi na fi ciment ak xeer di defar ci néeg ay daara ji nañ ko ñaanal ñun ñëpp nag yàlla defal ko taw feex ndax loolu baax a baax ndax léegi ñun ñëpp la war nag te am na mbokk moo xam ne moo joxe ba mu àgg fële kon nag nañ ko ñaanal baax baax benn bii nag ñuy fàttali waat mbaar mi mbaar mi moom moom ñor nañu lool ñor nañu lool dañoo bëgg daal mbaar mi def nañ début bi ba pare ñeenti million moo koy defar ñeenti million moo koy defar nag saa su ñaar fukki junni la képp waaw sëñ ma xuja nee na ba la ñu jóge fii tam ñu bakke ñu barkeelu dara loolu sëñ Lappé dana ci jël kàddu bu soob yàlla jërëjëf bismillahi rahmaani rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi cheikh Mouhamadul Muntaqa ibnu cheikh Mouhamadul Basir suñ borom may ko fan wu gudd lool ak wér ba lim yéene ci yoon mu àggale ko. noonu it lañuy ñaanale ñaanalee Serigne Cheikh mi nga xam ne si ne moo fi toog jotaayub Serigne Abdou Latif suñu borom may ko fan wu gudd lool ak wér. di ñaanal suñu mag ñu tedd ñi teew fii ñëpp buñ ci tuddee Baye Dame ma mu yóbbaale ñëpp. ginnaaw loolu ñu ngi nuyu mboolem suñu nawle yi fi teew yëpp muy ñi sant. Touré ak ñi sant Touré te bokk ci famille bi ñëpp ñu fi fas yéene jàllale ay kàddu yoo xam ne xañ na dis na ci ñun waaye day kàddu yu ndigal yoo xam ne mënut a ñàkk ndax ñun ndaw ñi nga xam si ne dañoo bokk ci lappe ñoo am yéene yi jëmale lappe ca kanam moo tax ñu sos benn sos association boo xam ne ñu ngi ko tuddee ànd defar lappe ànd defar lappe nag lu yaatu la war na ñi dëkk lappe war ñi dëkkut lappe te bokk ci lappe ñëpp ak noo ci mën a bokke moo tax xañ na am na kuréel gu fi am nga xam ñun ñii dañoo judd fekk ko fi muy mag ñi mag ñi daan daje fii di fi def ndaje mi bañ juddu ba mag ba dem ba ñëw ci ndaje mi kon ñooñu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal bu baax sëriñ Maam Balla mi ngi ci taxawaayam bu rafet ak ñi mu ko àndal ñëpp lii nag kuréel la goo xam ne ñun ndaw ñi nga xam si ne dañoo judd ci lappe dëkk lappe tey moom lappe ëllëg ñoo ko sos muy association ànd defar lappe association bi nag jubluwaayam du lenn lu dul lu jëmale lappe ci kanam ak lu taaral lappe ndax kenn ku ne ci nit ñi ak fa nga bokk ak noo fa bokkee yaa ngi fexe la ko taaral kon ñun waruñoo wàllu yaani fenn lenn ndax am nañ ñu defar kon nañ defar suñ dëkk bi loolu mooy li jiitu ci wax ji ginnaaw loolu nag association bi mi ngi taxaw daaw wala daaw jéeg daaw bi biñ dajalee li nga xam si ne moom lañ amoon ci xaalis mi ngi tolloon ci deux cent quatre-vingt-dix mille deux cent quatre-vingt-dix mille yooyu nag ci leen jëloon kaar yi ñu indi woon fii mbooloo mi daaw nga xam ne gratuite la woon nga xam ne kenn fay doon ci lañ ci lañ ko defoon ak yeneen sew sewan yi ñu ci def mu desoon quarante cinq mille di juróom-ñeenti junni ginnaaw bi nga xamee ne loolu jàll na tamit ren jii ñu dajale lu toll ci trois cent soixante huit mille trois cent soixante huit mille yooyu tamit ku ne xam na ne kaar yi indi fii nit ñi ren association boobu di ànd defar lappe dajee def liggéey bu rëy liggéey bu rëy bi mooy képp koo xam si ne dugg nga ci kaar bi ñëw fii téeméer ngay joxe ñëw bi ak dem bi lépp kon muy ñëw juróom fukk dem juróom fukk kon loolu ak jàppandal la waaye ak dimbali la waaye lépp ci suñ biir rek nag nag kon loolu mooy li nga xam si ne moom lañ def am nag yéene yu rëy ak yéene yu bari ci dëkk bi ni ko sëñ Maam Balla waxee muy li si jiitu muy mbaar moom yi ñuy wax mbaar mi moom man ñun suñ yéene suñ yéene moo doon tey buñ ñëwee ci mbaar mi la ñuy defee waxtaan wi loolu la ñu yéene woon daaw bi ñu fiy jógee waaye xañ na jaam ak yéeneem yàlla ak dogalam waaye yéene jooju lañu amoon. ginnaaw yéene jooju amoon nañ ko daaw nag yàlla dogalewu ko noonu bëgg nañ bu déwénee incha allahu rabbi moom ay baas ak yooyu duutuñu ko luyee lu ñuy def suñu waxtaan ñu defe ko ca mbaar moom wala buñ dee luyee baas yi dolli lay doon. kon loolu ñu ngi koy soññi mbokk yëpp comme ni ko suñ maam Balla waxee rek biñ xoolee dobi bi mi ngi toll ci ñeenti millions ñëpp ci war a bokk képp ku bokk lappe rek moo xam nga sant seen moo xam nga sant silla moo xam nga sant njaay moo xam noo mën a sant waaye nanga bokk lappe rek association boobu ñeel na la pour nga bokk ci ndax tund lappe lañ wax kon tund lappe ñu dëkk ñaari ñëpp ci lappe dañ bokk association bi niñ ci bokkee mooy carte membre la boo xam ne si ne bépp membre boo xam ne si ne bëgg nga ci bokk moom ngay jënd carte membre bi ñu ngi koy jaayee ñeenti téeméer liñ ci jublu mooy xam nombre ñi ci bokk ñaata la ak nuñ toll ba xam ñooñu buñ dajalee li ñu war a joxe nu mu toll kon loolu am na solo lool. képp koo xam ne si ne am nga carte membre bi ñeenti téeméer dina la war at mi nga teg juróomi junni muy vingt-cinq mille loolu mooy sa warteef yow mi dagg carte membre bi. waaye képp koo xam tamit mënut a dagg carte membre bi ngir mën di teg vingt-cinq mille defar nañ ay reçus yoo xam si ne carte barkeelu lañ koy wax nga xam ne. am na carte bu 1000 francs am na bu téeméer am na bu ñeent téeméer mën naa demit ba am yu ñaari junni mën naa dem ba am yu junni ndax liggéey bi doo a tàmbali rek la te soxla nañ ci tamit xalaati mag ñëpp ndax ay ndaw dong ko seq moom ay tuut tànk la ñun ñi ko seq ñëpp ndax sëñ Maam Balla moom Maguette Dieng ak euh, Serigne Galas Amina ñoom ñoo nekk ci bopp bi képp koo xam si ne bëgg nga cay bindu rek boo jokkoo ak Maam Balla moom wala Galas Amina incha allah rabbi dina fexe nga bokk ci incha allah kon loolu mooy mooy mooy mooy taxawaayu association bi numéro téléphone yi tamit mu ngi nii 77 291 24 41 77 291 24 41 wala 77 910 85 90 77 910 85 90 loolu mooy taxawaayu association bi bëgg-bëgg bi mooy loolu. carte barkeel yi tamit sëñ maam Balla moom yi moo ko yor maam Balla moom Maguette Dieng moom bàyyi ma xujja waaw kon ginnaaw loolu tamit ñuy soññu mboolem ñi nga xam si ne tolloo nag ñoom ay at wala ñu mag ñu tuuti ñu gën a góorluwaat ci ndaje mi ñuy def fexe ba di ci teew ku ci man teewaale sa soxna tamit mu teew ci ndax képp ku am soxna rek. moo xam fu mu bokk moo xam nu mu nu sant waaye bokk na lappe moom ba noppi. kon ñu fexe bay teew fexe ba ku sa soxna mën a teew nga fexe ba mën a teew waaye tamit ñu fexe bay def organisation boo xam day tegu ci yoon mooy ñun xale yi ndax seetlu naa man sama bopp laa ko tàmbalee dañoo ñëw rek toog ci baas bi wala ñu dugg ci kër yi toog. te loolu waruñu bu ñëwee dañoo war a jàpp ci liggéey bi moo xam ca waañ wala ñu dem moo xam lu ñuy def moo xam lu ñuy séddalim ndox moo xam lu ñuy def waaye waruñoo ñëw rek toog dañoo war a ñëw bokk ci organisation yi doon ñi organiser ndaje mi ndax ñun ñoo woo mbooloo mi ñëpp ñun ñoo leen fi daje mag ñi ñoo leen war a teral ñoo leen war a ñoo leen war a jox mbooleem loo xam ne si ne daa jëm ci ñoom kon loolu maa ngi ci soññ mboolem koo xam ne rek sañ naa ko ci yow ginnaaw loolu tamit doon nañ sàkku loo xam ne si ne ci mag ñi lañ koy sàkkoo waaye dañ koy wax ci mbooloo mi ñu ne ndaje mi ñu ëpp ñu bokk ci association bi bëggoon nañoo teew waaye guddaayu bis yi tax na mënuñoo teew kon bu ñu mënee dimbali ci ma bis yi di ko def comme buñ tabaskee ba am ñeenti fan muy ñetteelu fan ba rek lañ xam naa lañ si jublu ñu man di ko def ngir ñi nga xam si ne dañoo yor ay liggéey jàmbur bala ñoo mën a dellu ci liggéey yooyu teew ca kon loolu ñu ngi koy sàkku mbooloo mi ñëpp ñu dimbali ñu ci bu fekkee mën naa nekk ci suñ mag ñi ginnaaw loolu tamit ñuy soññante si suñ biir rek ah, jërëjëf sëriñ si nga xam ne jël nañ ci kàddu muy sëriñ bi sant si la ak sëriñ Ahmadou Touré macha allah kàddu yi rafet na loolu am na solo waaye xam naa dama si ñëw tuuti rek ci whatsapp whatsapp moom xañ na bari na dansé lool yéeme na lool maam yóbbu na nit fu ne xañ na tam nit ku ne tamit waaye ñun ñii de nga xam ne si ne ñooy Touré famille moom whatsapp dimbile nañu lool ndax man bari na fii ñoo xam ne si ne daaw kese lañ gisee daaw lañ mas a tegante bët waaye déggante bi ñu déggante si whatsapp muy groupe bi tax na bi ñu gisewaatee ren kenn la ji si moroomam loolu moom man mat naa ci seede ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam si ne ñu ngi ci biir mbooloo mi ñoo xam ne loolu yi whatsapp moo leen ko may waaye nag dadi comme que moom version la boo xam ne moom tubaab bi dañ ko indi rek teg kenn ku ne yaay xool na ko utiliser ba mën see jariñu te doo ci loru kon nag loolu ngeen dolli ñu ci ñaan bu baax te gën ñu see ñaax ndax ni ngeen ko indee tamit neex nañu lool ndax dina tax ñu xam li nga xam si ne amuluñu si njariñ ñu wan ko ginnaaw ndax jariñu ci rek lañ ci fas yéene def teewul ñu ngi ñi ñu daje ci biir groupe yi waaye ñi ngi ciy seetante tamit ci suñu biir képp ku am xew ñëpp ñu ku ci mën a teew danañ fexe ba nga teew ci te loolu yëpp group whatsapp moo ñu ko may. kon ñu gën cee góorgóorlu te groupe whatsapp yi tamit ñun suñu groupe whatsapp fexe nañ ko sàmm ba nga xam si ne kenn du fa dugal audio boo xam ne ne jëmut ci liggéey bi kenn du fa jaarale tamit photo boo xam jëmut ci liggéey bi kenn du jaarale vidéo bu jëmut ci liggéey loolu moom ñi seq groupe whatsapp bi fexe nañ ba loolu moom am kon nag loolu mel na ne ak sàmm la waaye tamit ak dogu la waaye tamit fësteef la boo xam si ne ñun gone yi jël nañ loolu kon daal xam naa kaddu yi liñ amoon yéene wax ko sax ëpp na lii waaye nag euh, xañ na li nekk ci xel mi lépp mun a ci làmmiñ wi waaye ñi ngi sant mbooloo mépp di ci jiital suñ mag ñi waaye di sant suñ suñ maam ball mii ñu dendal nga xam ne mooy suñ kilifa di ko jaajëfal bu baax a baax a baax di ko ñaan rek mu soñ ñu ñu bu baax mbooloo mi ci association bi ndax association ku ne xam na ne bu dee fee ñu nekk ci Touba association fa nekk xañ na Euh, am nañ njariñ sax waaye bokkuñu aw aw aw jëmin ndax ñun li tax ñu sos ko mooy lu jëmale dëkk bi ci kanam loo xam si ne day boole nit ñi ngir ñu gën a mën a jekku ndigal ndax ku ne xam na ne li bokk buñ ci association bëriwut bu ma juumut bu fatee bu matee ñaar fukki nit wala bu ko ëppee bariwut te ñooy dajale li nga xam si ne moom lañ fi tudd kon bu demee ba mat téeméeri nit yaakaar naa lépp luñ bëgg ci dëkk bi dinañ ko am incha allah kon ngeen soññee ñu ci boole gi tamit mi ngi fi képp koo xam si ne am nga ñoo xam ne si ne da nga leen a man di eh, labiré ngir ñu ci barkeelu ndax ñun du dajale xaalis bi rek moo ñu yitteel loo xam ne si ne dina mën a def li ñu bëgg rek moo gën a doon suñ yitte te ngeen ñaanal ñu suñ borom lafal ñu ci cat suñu borom musal ñu ci saytaane ba bu mu dugg suñu biir mukk yàlla dimbali ñu ba li ñu bëgg ñu ànd koog yéen ci barkeb Cheikh Abdou Lahad wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah. jërëjëf sëñ Alaaji li taxoon xale yi tànn la wax dëgg yàlla gis nañ ko. yàlla na yàlla def mag te def la magum lislaam yàlla nga def mag mu bëri mag mu bari barke di barke Cheikhul Khadim ñu ngi leen di sant bu baax nag gone yi ndax wax dëgg yàlla yéen a fay kaar yi te itam indi ngeen fi juróom fukki junni léegi juróom fukki junni jox ngeen ma ko deux cent cinquante mille ñoom ne ñoo fay kaar yi ba pare te indi nañ fi mil cent cinquante mille neenu cinq mille bi kenn na ko joxe ah asalaamaaleykum bokki dëkkandoo yi bokki taalibe yi maa ngi leen di siyaare di leen masawu coono ba ngeen fi jógee daaw ba ren bis bii seenam xale ngi ci waaye nag nun dañ cee mënut dara lu may ñaanal leen sunu borom may leen wér ak fan wu gudd ak fan ak wërsëg bu bare bare bari bal du ngeen bëgg ci dëkk bi ngeen def ko ndax dëkk bi bu ngeen ne da ngeen koy defar nun ngeen koy defaral ndax tey lu ngeen fi indi bu ngeen ko fi bàyyee noo ko moom kon nag nun mënuñu leen a fay ah li nga xam ne nag man maag waa dëkk bépp maag waa dëkk bépp noo ànd wax ji may wax sunu kàddu genn la xol bi benn la yéene ji benn la dara nekku fi nun lu may yéene leen jàmm te sunu baram may leen wér ba lu ngeen bëgg a jëf ngeen jëf ko ah lii ngeen wax nag ci mbaar mi ah xaj na lee daanu ko waxtaanewaat waaye ñoom ñi fi nekk te nekk leen fi nekk ci dëkk bi lu ngeen andi ah, bàyyi koog ñoom ñoom it mu xale ngi ci mbaar mi waaye bu ngeen demee yéen waxtaane ngeen li ngeen waxtaane ba noppi waaye ñoom it ñiin fi bàyyi ak ñoom dañ ci waxtaan ak ñoom ndax am na lu ne ñoom ñoom itam kon nag yal neen yàlla may wér yal neen may fanu gudd te rafetal nag sunu taalibe sunu njiit yi nga xam ne ñoon fi nekk nekkal fi sëriñ Touba yal neen sunu borom bàyyi sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke kenn ku nekk na ñaan yàlla njaboot gi mu fi bàyyi mu teg ci loxoom Cheikh Abdou Cheikh Mbacke mii nekk fi nekkal sëñ Muntaqa te fu mu dem ci dëkk ci àll bi dëkk bee tax kon it moom itam yàlla na ko yàlla may wér lu waaye def ci dëkk bi moom nga ko defal moom nga ko waxal yàlla na sunu borom may fan wu gudd te may leen wér ngeen baal ma xàq nag ndax man damaa mënta wax dara. ab dëkkkat boo ñëwee borom dëkk ba foog nga jox ko kàddu moom la ñu waroon njëkk jox kàddu gi sax waaye ñu jox suñu alaaji Touré mi nga xam mooy seetu village bi mu sànni ci ay kàddu suñu alaaji bisimilah. auzu billahi mina sheytaani rajim bisimilah rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu mbokki jullit yi fi teew mbokki taalibe yi kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak sant te di la bala àq di la bala àq ñu ngi siyaare kilifa yi fi nekk yëpp te di leen ñaanal sunu boroom yàq seenu fan ba li ñu yéene ci njaboot gi lépp sunu boroom defal leen ko barke sëñ bi. waaw gannaaw loolu tamit ñi ngi nuyu suñu mbokki Tuubaa yi nga xam ne dañuy wax bu fekkee ne ndaje mi mu ngi dox ba ni ni mën naa ne lépp li ci ëpp ci ñoom la ndax lii ñun ñu fi teew ñi ko war a def noo ci war a jiitu waaye xëy na suñ kàttan ak suñ man-man àggu fa waaye fañ ci bëgg a àgg ak suñ kàttan ñoom ñi wax dëgg yàlla gis nañ ci seen paste bu baax a baax ndax buñ ñu dee fekk si di bo di fi def lu mel nii di ko bokk ak noonu lañ ko defal comme ni ko Serigne wax dëkk bi ah wax dëgg yàlla buñ buñ ñëwee noonu lañ fi fekk buñ demee noonu lañ fi bàyyi kon lu fi def lu nekk noonu lañ ko defal kon ñu sant leen bu baax a baax a baax ba fi nga xam ne fi lañ bëgg a àggale dëkk bi suñ borom kàttan na leen bañ àggale ko fi ñun ñëpp ñu bokk ko fekk ci barke sëñ bi gannaaw bu loolu wéyee waa dëkk bi tamit muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ñëpp ñu ngi sant bu baax a baax a baax di leen ñaanal bu baax a baax a baax ndax kat wax nañ ne wax dëgg yàlla gis nañ ñu ngi leen jàppe gis nañ taxawaay bi ci dëkk bi ak feneen fudut fii kon nag sant nañ ci loolu bu baax a baax a baax ndax dañoo wax ne ndaje mi lii ngeen di def fii bu leen neexan ngeen toog tuubaa defe ko fa te bu boobaa kat ndax lappe ñun ñëpp noo ko ba kenn mun leen a génne ci lappe kon bu ngeen ñëwee fii ànd kook ñoom wax dëgg yàlla loolu ñoom wax nañ ne kontaan nañ ci sant nañ ci bu baax a baax a baax waaw ñi ngi ñaanal ñëpp xëy na daal daanaka li ci ëpp sax li ñu war a wax lépp wax nañ ko li lu ñu dolle kon ñi ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp ah di ñaan suñ borom ñu teew yàgg koo teewee lool li ngeen ci yéen lépp suñ borom defal leen ki ci barke sëñ bi ñu fekk ko ñun ñëpp tabaarkalla jërë ngeen bu ko defee ñu dox sëñ ma dikke nag bu ko defee jox sëñ ma dikkee jox sëriñ bi Mbàkke mu mu mu wax ci ñu bàyyi daam ma lay ma ñaan. ku ko jëndalee woon am am am am xar wala gàtt di ko ko yaral muy muy muy produire muy gën di bari ak mu jot muy gën a bari ba doon nag mbëndi doon lu yaatu lu baree bari alal ji bari lool nee mu jékki-jékki ma séen ko muy ñëw nee na ba mu ñëwee mu ne ma dama fee ma soon a doon ab surga nga jëloon ma te la ma fi jotoon a liggéey fayoo ma ko. ma bëggoon nga fay ma ko nee na ma ne ko xoolal àll bi mu xool lépp weex ay gëléem ay xar ay nag lépp di alal ma ne ko lii lépp yaa ko moom mu dema xanaa yow danga ma yëjji alal ju bari nii nu ma ko mën a amee ma ne ko la nga fi bàyyi woon laa la doon yaxantul ba mu toll nii nee na mu daal di jël alal ja jiital ko di dem ma di ko xool muy dem ba gisatuma ko mu ne bu fekkee ne loolee ma defoon ci jëmm jooju yàlla rek a tax ma di ko def xeer wii ne dañ ba jeex takk ñu gën a dem sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na xeer wa dañ ba jeex takk ñu gën dem gis nga jëf ju baax ak jëf ju yiw nit ki da ko war di fàggu ci waxtu wu nekk di ko denc ci ay ndàmb ngir saabu soxlaa man caa jaar sàkk dara gëntëre yi xeeti jëf yu mel nii sëñ Abdou Hakim wax na ko léegi julli nun ñëppay julli nun ñëppay woor ñëppay nat asaka waaye nag maanaam fexe ba xeeti muamalaat yiy dox ci suñu diggante ñu fexe ba mu rafet suñu diggante dara gënu ko nit yàlla ku xam yàlla aarif billaahi nee na sëriñ Basiiru Mbàkke radiyallahu anhu nee na moom sa bopp moom sa alal moom nit ñi kenn la ko yàlla mayut nit ñi dañ lay jaral joxe sa temps jaral la joxe sa alal wala boog doo mën a moom kenn nit ñi boo leen bëggee moom da ngay ngay làmb sa poos di jox wala mu jaral la nga jël saa bu ñu amee yitte nga ànd ci ak ñoom di ko dox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu boroom ma ngi ànd ak nit ñi li fekk ñi ngi dox ci aajooy jàmm ñi mbokki jullit yi ku ñuy wax Sufyaan ibn Humr ñaari baat rek la laajoon yonent bi dafa ñëw ne ko qul li fi l islaamin xawlan laa asaluhu xayran baadaka wax ma ci lislaam na gàtt bu mu bari jenn wax doo joo xam ne duutuma ko laaj kenn kenn kenn sa gannaaw yonent bi ne ko xul amantu billahi su ma staqim fasal ci sa xol ne amul benn buur bu ñuy jaamu budul suñu borom tabaraka wa taala te keneen kuy jaamu beneen buur budul suñu borom tabaraka wa taala sëñ Tuubaa nee na bis dana ñëw nga xam ne amul benn buur bu ñu war a jaamu budul suñu borom kuy jaamu sunna seneen wala leneen lu fi waaye taxawal lu dut sunnas Moustapha sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi radiyallahu anhu wa ardaahu nee na bis dana ñëw nga xam ne kenn wër ta jaar ci senn sunna wala kenn wër ta jaar ci lenn lu dut sunnas Moustapha sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne ko xul amantu billah fasal ci sa xol ne yàlla képpay buur waaye nag suma staqib nga tegu ci yoon wate mooy nga jub lazina amanu wa xaalu rabbuna allah suma ñi nga xam ne fas nañ ci seen xol ne amul benn buur bu dut yàlla ñu suñu borom tabaraka wa taala tagg na leen waaye nag ba noppi nag ñu teg seen bopp ca yoon wa lan mooy yoon wa mooy li Moustapha sallallahu alayhi wa sallama tëral loolo la yàlla gërëm ak diinu maa ataa bikum muxtaar li yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu mooy yoon wi leneen lu way xàll loola loola sos la lu way xàll lu wuute ak njàngalem yonent bi rek loola sos am kilifa dama ci exiger am kilifa te di ko déglu tey topp ay ndigalam sëriñ bi radiallahu anhu wa ardaahu nee na laa tafaalu cheyan bi xayri isni fal isnu chartun fi xaboli sani bu kenn def dara lu ne da teg ci ndigal lu leer waxul nag ku jóg rek di digle isil mu rabbi kiy digle tey yar tey defar ruu sëriñ bi nee na ni muy mel ma wax la ko isil mu laa yuriidu fil muriid kii yar tey jubbanti tey jaarale ci yoon mooy koo xam ne taalibe bi sëriñ bi du soxla ci moom dara lu dut li lal wuusoo la lu dut yeggale ko ci suñ borom tabaraka wa taala kooku sëriñ bi loolu rek lay soxla ci moom ba noppi nag naaj yam mi na marit man koo dàkkul seytaane ba saytaane du yegsi ci moom kon lii war ki nga xam ne mooy bokk fu baax te bokk ci famille bu baax mooy na yar boppam teg boppam ci aw yoon jàng xam-xam alquran ak sunna bu ñu waxee xam-xam principalement mooy xam-xamu sharia ñu jàng xam-xamu sharia te xam ko xam atte yi te tënku ci te fonk ndono yi te toppaat ko yii ñuy wax yépp muy ay whatsapp ay nangam am na ñoo xam ne mënu leen a drapé dëgg la nag ay danger yu dul jeex niñ ko waxee léegi yu dul jeex a ngi ci biir waaye am na yeneen yoo xamante ne ay privilège la yoo xam ne mi ngi ci biir comme ni ko ni sëñ bi waxee léegi ñaar yëpp a ci am waaye nag bu ñu waxee al awlama te mooy li ñuy tuddee mondialisation nga xam ne adduna bi yëpp jël nañ ko teg ko ci benn pàkk léegi kenn ku nekk da def li ñuy tuddee al ixtiyaaraat te mooy ngay def ay extrait bañ di jëlandoo lépp di fatandoo lépp faaw nga ciy tànn kon bokk yi aljanna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na aljannatu aqrabu minkum min sharaaki naala aljanna na ngeen xam ne moo leen gën a jege ni aw waroot gën a jege aw dal waaye nag wan naaru misla dalik safara it noonu la leen jege ginnaaw ñaar yépp ñu jege kenn ku nekk na gaaw xintewoo jëf lu baax te bañ a bàyyi benn occasion bu baax digganteem ak boroomam dee waxtu wi muy ñëw kenn ci nun mënuñu koo fangal moroomam suñu borom tabaraka wa taala fi muy taseeg jaam ñi kenn mënta tee ba du fa taseeg ñoom asgor la képp koy sàmm sa kaddu yàlla la gën a sàmm kàddoom te waxoon na ne walaw la kalimatun sabaxat asgor a mel noonu bu fekkoon ne sama kàddu jiituwuma seen jëf yu ñaaw yi ak seen jikko yu sew yi danaa leen dajale ci benn pakk atti leen bisu tey waaye nag comme waxoon naa ne dama leen di xaare bis maa ngi leen di xaare fii yawmil maalum wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu allahu akbar tabarkal li nga wax moom tabarkal ñëpp seen yaram daaw ñu jox kàddu gi sëñ sëñ Mbacke sëñ Basiiru Mbacke mu sànni ci ko defee ñu jox bàyyi daam ma mu tëj jataay bi sëñ Basiiru bisimilah. tey rafetlu jataay bu baax a baax te di nuyu ci turu suñu suñu sëriñ Cheikh suñu kilifa mu ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant nee na moo bëggoon a teew fii waxtaan ak mbooloo mi waaye gan ñi ci kër ga ñoo ko mayut mu génn kër ga waaye teewut yabal na njabootam sëriñ Abdou mi dib taawam jiite ko man nag rakkam yëpp ñu teewal ko fi kon nag loolu doy na sëkk ba tax na nee na mi ngi leen di ñaanal fa mu toll saa sone mi ngi leen di ñaanal xam na ne fàttewu leen ko moom it fàttewu leen ba ko suñ boroom defee muy kilifa ak dëkk bi ñëpp moom la déglu ci yu baree bari ndax ndax suñ borom moo ko def ba tax na loolu nee na mu ngeen di dolli dénku boppam di leen déglu ci jataay yu mel nii saa sone mu ngi leen ciy déglu fu ngeen toll di ko ànd ak yéen guddi ak bëccëg ci wàllu jëf ak wàllu ñaan ak lépp nee na jërë ngeen jëf gannaaw loolu ñu nuyu sëñ daam marema mi di magam jataay bi ak kilifa yi fi nekk yëpp sëñ baas ci Touré ak sëñ Moustapha ñoom ñëpp magi jataay bi fi teew ñëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak sant ndax ñoom teew nañ seen a njaboot teew nañ te loola bis bi nim rëyee ci ñoom moo tax ñu teew seen a njaboot teew ndax ñoom ay makaalaf lañ yoo xam ne bu leen neexoon kat am nañ ngànt seen a njaboot teew waaye loola doyu leen moo tax ñu jiital seen a njaboot ñëw kon nag mbooloo mi nañ leen bokk ñaanal suñ boroom yàggal seen yàggal leen suñu kanam ndax ab jataay mel ni kat ay mukallaf mënu fee ñàkk kon nag nañ ñaanal mag ñii nekk suñu wet dañu xelal guddeeg bëccëg jiital ñu te duñu fakkatal nañ bokk ñaanal mag ñi ndax kii raayal jataay ba lañ ci biir loolu it lii sëñ bi daane la sànq ma wax tuuti rekk ndax askanu Touré askan wu màgg màgg lañ ndax askan woo xam ne ti sëñ Saaliw sëñ Saaliw Mbàkke moom Sëriñ Tuuba ak i magam sëriñ sëriñ ci liñ sosoo askan woo xamante ne bi sëñ Abdu Latif mii dëkk Labèche fi la ci la sosoo askan boo xamante bi si Issa Mbàkkeem si Abdou Dia ci la sosoo ak ñeneen kilifa yu bare bare bari wu askan wu tedd la wu màgg la nañ xam liñ am ñu gën koo fonk te jàpp kook suñ fukki loxo gën a xam liñ liñ liñ liñ am ñu gën koo fonkit weesuut kenn ku ne bis bu weesu moo natt boppam xoolaat boppam ba xam lu mu ci jëfoon ci lu baax ak lu mu ci jëf ci sawaan ba te njaboot gu ñu suñu borom boole it nañ leen tàggat ci ci njàngam alxuraan tàgg leen ci njàngam xam-xam bañ dañ ak réer ndax loolu suñ borom moo ñu ko moo moo moo moo ñu boole njaboot gi nañ fexe ba ëllëg si biir buñ tasee yow yamal xëyaam buñ layoog ñoom duñ ñu yey nit ki la war sa njaboot danga koy taxawu danga koy def lu ko may boo ko defut ba léegi sa njaboot dana la yey kon nag waxtaan waa ngi gudd te mu ngi guddi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yàlla ñu fay teewee déwén déwén képp ku fi indi njàqare suñu borom fajal la ko sàmm ñu sàmm njaboot gi defuñu ak wér ak tal yokk wërsëg ak man gi ba gone yi lii ñu naal mu gën a yaatoo yaatu ba ndax lii fi nekkat ñoo ko fi def te te te te mag ñi ñaanal xale yi lii ñuy def mu gën a yokk kon nag jërë ngeen jëf sant nañ ñëpp gërëm ñun ñëpp ñu ngi baalu ñàq ñëpp ñu ñu ñëpp baax baalu àq ñu ngi baalu àq jërë ngeen jëf wasalaam. ok ñu ngi lay na lool ñu santal ñu bu baax nag ne ko suñu xol sedd na ci moom jër jërë ngeen jëf. ñu dox bàyyi daam maree mi xam mooy. sëñ Cheikh sëñ Cheikh nee na sëñ Cheikh sëñ Mamour mii la yabal doomam mu ubbi kaamil bi kon sëñ Mamour ñu ngi lay ziar bu baax a baax ngeen santal sëñ Cheikh daal xamal ne lépp luñ fi def ci dëkk bi moom lañ ko defal ndax moom ñun ñooy moom ñun moom mooy ñun. ñun mënuñoo dem ba ko mooy mënuñoo dem banu ngeen santal nu ko bu baax ñu ngi ko ñaanal mu yàgg fi loolu ci wér barke Cheikhul Khadim ñu jox bàyyi daam ma ne mi nga xam mooy kilifa jotaay bi. mbax ji jar na jóge fii yendoo dox ba ngoon ndax déglu ko. gannaaw sama borom baaxe na nañu ko alhamdulilahi rabbil alamina dama bëgg a dolli tuuti ci li ma dikki mii bu doon wax ci mbiri suñu borom loo xam ne nii man dama caa jaar de pour gën a dëggal wax yonent bi loo xam ne nii dama koo def te sama borom a tax ma def ko ba ma koy def ak la ma ca sama borom defal booba maa ngi yor nekk ndakaaru ab taxi ma romb koo xam ne nii dafa am tawati xel toog ci genn garab tànk baa ngi fulliku di ko dale ci doyat bi ba ci wóom bi lépp def aw yàpp xong tur marom ko mu toog ci garab bàcc bàcc suma rakk jële booba ma nga riifulal ma dem na ko bàcc ah, ma ne ma koo xam ne wax dëgg yàlla yërëm naa ko wax ko du mu dem mu ma ah suñu borom ma daal oto ñëw woo ko mu ni ma ubbil ko bunt bi mu dugg ma dem moom hôpital ba ma demee hôpital ma wàcc ak moom dugg ak moom hôpital woo waa ji wan ko ko waa ji ne ma ah yaay jënd garab yi de ma ne ko bisimilah mu daal may bindal ordonnance bi ne ma demal jëndi ko pharmacie mas mu dóor ba ca cathédrale ba fa laa koy jëndee ba ma ko andee mu faj ko raxas tànk bi def ci garab bànd ko ba mu ne keeg mu ne maa ah, lii de laa ko mënal ma ne ko jërëjëf ma daal ko dugalaat ci oto bi delloo ko fa mu ko fekkoon xam nga lu ma ci sama borom fayee ci àdduna xamaguma nag lan may fayee fële booba ab taxi laa yor damay liggéeyaan sama borom def ñu service américain bu fa ñu ñu embauché ma man sama soxna samay doom hôpital garab duñ fay dara lépp sa bee service bee koy fay pendant fukki at ak juróom gis nga gis nga li seen borom def juróom-ñaar téeméer laa fayat man ci ordonnance ba seen borom maag maag sama njaboot ak ñëpp ñu fu ñuy fajoo garab gu ñuy jënd ak lu mu de lu mu seer seer médecin ba lu mu seer seer duñ fay dara pendant fukki at ak juróom kon nag dë dëggal wax yi mag digg ji moor be beneen bi dama xëy sama kër génn jor ñaar téeméer dajeeg bàyyi peer ma di ko xool rek sama yàlla sama borom moo ma si xëy na ma jox ko ma woo ko ñu mën ko sëñ bi am ngir yàlla rek. magasin bi ma doon dem pour jënd peinture dama ne salaamaaleykum nga dama eh waaye Moustapha yow de am nga douze mille francs yoo xam ne nii la nga fayoon daa ëpp démb lañ ko gis. <laughs> ak leneen kon nag yal nañu sama borom dimbali nañu waaye yal nañu doolee dimbali lépp lu ñuy def ñu di ko def ngir yàlla te di ko sellal te di ñu ko nagul kon nag yal nañu suñu borom musal ci seytaane ak i pexeem ak liggéey moom ñoo mu àndal ñëpp te musal ci suñu njaboot gépp ak suñuy waajur suñuy sët dolli ci musal njabootu Xaadimu Rasuul ak taalibe julli yëpp yal nañu suñu borom doolee musal ci merum sunu borom. ak lépp la koy waral yal nañu su borom defal fan yu gudd yu ànd ak wérug saayir ak baatin ak kattan ak tal akuk dal ak xéewal yu baree baree bari yu ànd ak barke ba xam ne lépp luñ bëgg a def ci lu baax man koo def te di ko def ngir yàlla teñ di ko sellal teñ di nu ko nangul yal nañu si booleel mujj gu rafet gu ànd ak yërmal nañ jéggal a ngërmal si borom ci darajay yonante bi ci barke bi alxuraan barkam xasaay bi dara ji borom xasaay di xaar moo fi Cheikh Mouhamadou Moustapha Moustapha yal na ko fi sama borom yàggal lool te gën ko wér ba lépp li mu naal mu def ci lu ko wéy njortam te ànd ko moom te nangul na ko dara jee xaar moo suur bu loolu wéyee nag soxna xaalis ku xaalis rek nga gis ko muy nii nee dafay for ab xaalis du wax ku wax ku wax ñaata